plus important te duñ signalé ko du quinquennat gis nga bu ñu génnoon deux mille euh, vingt quatre bii assemblée D'aller dalay rattrapé ad vitam aeternam maanaam bi ñuy quinquennat maanaam ñu def régime bu cinq ans c'est parce que nous éviter beaucoup éviter comme ñu daan am France li cohabitation mooy ligne ñuy dund mhm. président bi ak majorité bi duñ bokk ah. mu nekk blocage yu dëkk bi permanent ñu ne xam nga nu ñuy def léegi bu ñu defatee élection présidentielle tout de suite mm. dañu def élection législative ñoom ñaar ñëpp 5 ans mm. par entre Ablaye Wade mi njëkkoon a laal 2008 constitution bi ak Macky Sall bi bañ a wàññi mandaam jaarale ko fi mu ko jaarale pour conseil constitutionnel bañ on s'est retrouvé dans la situation où l'élection suñ ko bàyyee ci benn cinq ans da ngay am première année bi élection présidentielle deux ans après élection législative quatrième année bi wala troisième année bi nga am élection local muy ñetti élection ci benn mandat fan ngay liggéeyee président ni nag mm-hmm. loolu lépp su ma ko bëggee def li gën a simple ginnaaw ñi séq naa ak ñoom jàmm ñu wan ma ni bugguñu jàmm jox naa leen constu HCCT dissoudre leen ma ñu bañ mm-hmm. mais ñu dem bay usurper sama pouvoir man président mm. naan ma fixé woo date ñu ñoo lay fixeel date mu ne xam nga nu ñu def ginnaaw ñii naru ñoo voté ku comment ku bañ a dindi HCCT mm. de quinze milliards di nga voté budget bu six mille milliards mu gis nga ñi liñ bëgg alors qu'on a des urgences gis nga discours du président ni mu gàttee te ñëpp seede ni da koo teg ci droit lu tax mu gàtt affaire u mbëkk mi gis nañ ko mm. ak tragédie bi mu ñu jural mu leer na ñun ñëpp affecté nañ mu ne man sam programme nan laa koy déroulé si je suis obligé ma jaar assemblée assemblée ak loi de finance boo xam ni mm-hmm. koo xam ni débat d'orientation budgétaire voté wu ko fan la lay voté les lois de finance léegi buñ togué toogee ba décembre jot. Hmm. voté wuñu loi de finance fan lañ jëm investisseurs yi luñuy wax mais Sénégal mom dekk bi dëkku dekk jàmm. Hmm. coow li bëri na mu on va mettre fin à la politique politicienne et à la polémique stérile. bien sûr désormais hmm. je vais dissoudre jox population bi ñu jox ñu majorité. bi nga xamni soxla naa ko pour gouverner pour mën juger après les cinq ans sur ma politique mais duma ma nangu ren déwén beneen bi ci topp nous continuons politique politicienne donc il y a vraiment une logique président président des dissolution un référendum le référendum <laughs> parachever mm. l'œuvre euh, réformatrice bien systémique président politique risque même